Afrique li ñu dal lu métti la ndax suñuy réew buñ ko yoroon niñ ko war yore li ëpp tey ñiy dem ci gaal yenn saay ay mool lañu li tax mool di dem te moola ëppoon koom-koom ci senegal ndax da daan dem géej teer si jaay léegi am ay millions léegi su demee géej du fa fekk jën parce que Macky Sall signé na jaay suñu gaal gi yëpp Union européenne ak ay bateau chinois ak bateau russe lii mooy problème mu Sénégal bu loolu weesoo ñu wax tuuti ci li fi xew ndax dafa am ku bind ci benn journal ci français ni tout ça pour ça mooy lii lépp fii la mujje nga jàpp lu mat deux cent personnes diggante barki démb ak démb nee nañu atte nañu lu mat cent vingt sept personnes tey am na juróom yi àtte encore Ziguinchor ndax ay mineur lañu moo tax ñu teqaleeroon leen ak ñi nga xam ne majeur lañu te xam nañ fu muy mujje nga àtte lu mat 127 personnes 127 personnes yëpp ñu yeewi leen ne leen dem leen ñibbi defu leen dara li ci gën a garaaw ci 127 personnes yooyu boo jëlee ñett yi nga xam ne waxoon naa ko fii ci conférence de presse ñoom lañ doon viser parce que inéligibilité la ñuy ut ndax ñooñu statut leader politique lañu ñu yor muy moom mi Déthié Fall gi Marius Sagna ak euh, Ahmed Aydara Barthélemy Dias keroog bu tegoon tànkam buntu këram wax naa ko fi ñu jàpp ko moom kon fi mu ne nii def nañ ko sursis moom it waaye boo génnee ñett ñooñu 124 yi ci des ñoom ñëpp relaxé wuñu leen de relaxé mooy nee nañu def nañu waaye li ñu li ñuy def. Euh, ça n'admet pas une qualification pénale mooy jàpp ñu lu ñu mën a toppee nit la ba di ko jàpp juge bi waxu lool de juge bi dafa ne defuñu dara amul lu ñu leen mën a tiiñal les faits n'existent pas nga jàpp ci cent 124 personnes Macky Sall jàpp 124 personnes téye leen 11 jours ci ay caaxaan après ñu ñëw ne ñu dara dara dara saa à ku ne ku ñëw kër Ousmane Sonko fanaan fa di garde corps xëy dem boutique ba di jëndi ñu jàpp ko dugal ci fourgonnette à 9 ci manifestation boo xam ne nee nañu 16h la waroon am juge bi juge bi ne lii mënu ma cee sax fee amul fee dama naan dama siy jàpp nit ci régime boobu la ñu nekk tey xam naa ni gàcce gu rëy rëy rëy war nañ ko am bu dee dese na leen rusukaay yi loolu lu garaaw la lu garaaw a garaaw la. ñu jël nag ñi nga xam ne leader politique lañu te ñenn ñi jiite ay liste ñu ne ñooñu la ñuy coller ay sursis pour ëllëg ñu mën a invoquer euh, inéligibilité bu condamnation bi définitive yàlla def na sax mënu cee am ndax bi ko avocat yi xoolee cadre bi dugg ci te invoqué wu ñu article 34 kon ñi ñu jàppoon ñépp nag militant lambda sympathisant ak ki deful dara yoonam newu ci ndax ñoom ñibbi loxo yi nen ñu bañoon am na ñoo xam dañoo liggéey woon ñibbi wàcc di ñibbi ñu jàpp leen dugal ci fourgonnette bi ñooñu ak militants yi génnoon di manifester ak sympathisants yi parce que duñ koy mel rek ci leader yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw di leen jaajëfal waaye di saluer surtout seen courage parce que wane nañ ko ba ci devant le juge ñun ñu ngi woon foofu fa la ñuy diggante Guédiawaye ak Dakar mais on était de des militants que nous avons très fiers même hmm. Macky Sall bu yaakaare ni mën na xoqatal sénégalais ndax na boppam le peuple sénégalais est un peuple très digne du police du gendarmerie du juge moo leen di xoqatal ñu leen di féliciter di leen encourager ndax boo toogee dégg ku ñu ku ñu téye jàpp ko mu ne leen su ngeen ma bàyyee suba suba suba suba suba ñu woo mani ñu woote manifestation maa fay jiitu kon échec am na ci ñoom te safaanu liñ doon ut lañu ñu am finalement ñaareel bi mooy avocat yi wax nañ ko gis nañ seen taxawaay rafet na mat na te mbir mi dafa mel ni avocat yi léegi dañ koo jëlal seen bopp ndax ñooy ñëw systématiquement constitué wu yeewi askan wi joxu leen cinquante francs am na ñoo xam ne ñoo dagg seen billet avion dem Ziguinchor plaider foofu daggaat seen biir ñëw dalaa laajuñu ñu dërëm kon yoon ñu ngi leen di gërëm waaye di gërëm it réaction yi au niveau international ndax léegi tudd na réaction ci ay homme politique yoo xam ne français waaye man damay insister ci réaction yi nga xam ne fii Sénégal d'abord la amee ay intellectuels yoo xam ne kenn mënu leen askanele parti bi wala parti bële te loolu bu amee rek mooy dëgg ngi feeñ parce que nit bu bokk ci parti mun nañ ne day far day farfarloo waaye koo xam ne kenn mënu koo askanale ci parti bi wala parti bële nit bu xelam di màcc la muy xalaat di wax te kàddoom bariwul gaaw la àddu bu demee ba jël xalimaam bind xamal ni dëgg feeñ na kon ñu leen di gërëm mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye yéen yëpp yéen ngi liir journaux yi dafa mel ni soo seetee rek universitaires yi ay dizaines et dizaines universitaires bind loo xam ne tey au niveau national et au niveau international Macky Sall bu ko desee woon tuuti lucidité fi mu toog war na xam nit mbir mi xëm na ba noppi te kenn mënu ne ñooñu man xaw ma leen xalifa xamu leen jokkoo jóg ñun bi ñu koy def parce que réew day am fu mu toll ku ci noppi rek da ngaa sot ki nga sotal nag mooy ki tooñ dootul affaire politique ndax dictature bii di dox. bis buñ ko bàyyee ba mu egg bu paree ci leader politique yi ci askan wi la jëm du universitaire du avocat du notaire du journalist kenn dootu fi wax foofu lañ jëm moo tax day am fu muy toll dootul xeexu politique dootul xeexu conquête du pouvoir xeexu sauvegarder li nga xam ne aki démocratique la te loolu defe naa ñiy wax yëpp xam nañ ko waaye ñi réagir yëpp au niveau international gis nañ fi ay artistes man xaw ma leen lu dul xanaa ci seen musique laa laa laa leen xamee gis nañ fi ay universitaires gis nañ fi ay mais c'est extraordinaire au niveau africain laa wax ñu jël seen responsabilité daal di wax ci li xew Sénégal parce que nu sommes dans un monde ouvert ku foog ni mun nga manipuler nit ñi ñëpp dañuy suivre actualité di déglu di xool réseaux sociaux yi surtout nag ndax le meilleur indicateur de la vérité aujourd'hui c'est les réseaux sociaux kenn mënul jënd kon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp di wax nag ni dinaa waxaat tuuti ci samay xarit magistrat yi keroog avocat yi dañu wax lu am solo fi ne nii nous sommes à la croisée des chemins lu ne mun na xew ci réew mi lu ne mun na xew ci réew mi ndax kenn weddiwul ni senegal réew la boo xam ne mi ngi sous tension li ko firndeel mooy li li ko firndeel mooy li xew ci fan yëpp te loolu it daf ñu war a delloo ci lenn waa dafa ne woon il va réduire l'opposition à sa plus simple expression opposition bu dox ba mun a créer une condition de tension dans un pays opposition boobu sori na sa plus simple expression c'est la pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression tey c'est le pouvoir qui s'oppose loolu moo yéeme ci Sénégal c'est le pouvoir qui s'oppose à l'opposition aujourd'hui c'est l'opposition ki pose des actes pouvoir bi topp ci gannaaw te yaakaarul nag lu dul ci police ak gendarmerie ak magistrature moo tax ma ne am réew bu tollee foofu avocats yi rappelé nañ ko les juges keroog fële ca Géejawaay rappelé leen ko fii ci Dakar ñun on a rien contre les te li ma yàgg wax gëm naa ni li ëpp ci ñoom c'est des magistrats dignes bi ma defee fii sama dernière sortie wax ci juge yi li ma waxoon yépp à 90 pour cent vérifié wu na lan laa waxoon dinañu renvoyer renvoyer nañu les chefs de juridiction ñoo koy jël ñoo ko jël lañ cey jublu mooy des condamnations de principe pour les leaders politiques def nañ ko kon li ma waxoon yépp am na waaye bi ma ko waxee ba pare samay avocat dañ ma woo ne ma ah juge sàngam de xam nañ ko yàgg nañoo jëflanteeg moom te xam nañ ni ku jub la te xam nañ ni kenn du ko mën a influencer te ni nga waxee ci moom dafa mel ni méngoowul ak ñuun li ñu xam ci moom ma ne tey ñun dañoo nekk ci xeex te je suis désolé de dire waaye suñu principal adversaire ci xeex bi ci jamono yi ñu toll du Macky Sall c'est la justice du Macky Sall c'est la justice ndax bu buggee annuler suñuy liste ci justice la koy jaare conseil constitutionnel moo annulé suñu list ci lu dul dëgg ñëpp xam ko mu valider seen list ci lu dul dëgg ñëpp xam ko kon justice boobu suñu adversaire politique la aujourd'hui bu buggee euh, rendre élu inéligible benn opposant politique ci justice la koy jaare kaaw xalifa Ababacar Sall a ngi fi bu buggee sonnal opposition ci justice la koy jaare ci ay arrestation arbitraire kon justice boobu bu nangoo ñu gérer ko rël boobu dafa war a nangu it moom ak keneen ku mu doon nag wax ji dafay leer de fii dafa am Macky Sall di gouverner am ñun ñuy opposé wu ku mu neex nag nga ànd ak Macky Sall ñun amuñu ci problème mais na nga nangu ñu ne ci xeex bi ñuy xeex dañ lay dugal ci xeex bi donc li ma li avocat yi wax justice bi li ñu leen wax juge yi mooy ñoom ñoo war a atte fi mu toll nii ñoom ñoo war a doon les garants de la démocratie te tant que ñi ngi jël décision yi nga xam ne dëppoo nag li nga xam ne mooy yoon parce que fii ñëpp fi jàng nag ñëpp fi jàng te kenn demul ci justice ay loxo neen kuy dem ci justice da ngay dem ak ay avocat ay professeur université jàpp ci ñoom ñëpp même droit bi la ñu jàng te ñun ñii ñi ci ëpp ci ñun fac droit la ñu génne kon suñu liiree texte de loi mun nañu xam li mu wax juge bu fi attewul lu dul yoon ñëpp xam nañ ko à commencer par yow mi ko atte xam nga ni li nga atte du yoon mais tant que juge yi ñi ngi doxal yoon di atte yoon defe naa réew mi apaisement dina fi am loolu mooy seen rôle bu ñu tooñee nañ ñu teg toor bu ñu tooñee nañ ñu teg toor appliquer ñu la loi de manière claire et précise coow du am waaye bu loolu amul buñ ñu tooñ te yàlla xam na ni tooñ nañ ñu tooñaat ñu tooñaat ñu te ñoom xam nañ ko magistrat boo ci wéetal mu ne la li xew fii du yoon li xew démb ak barki démb du yoon waaye tane na par rapport ak lañ daan def moo tax coow li bëriwul ndax sursis bi ñu teg de ku ñu jàpp fii sa buntu siège ci manifestation bu war a am à 4 kilomètres d'ici jàpp ñu la ngay manifester jàpp ñu la nga woote jàpp ñu la nga ñu jàpp la ci condition yooyu kidnappé la yóbbu la ba pare xotti sa orma député moo tax wax naa ko ko il faut porter plainte contre le procureur xotti sa orma député ba pare ñëw ne la ab sursis lañ la jox loolu du yoon waaye ku jàpp cent vingt 127 personnes. bàyyi 127 personnes les 124 nga ne amul sax lu ñu leen mën a teg ci ay fait ñun dañu naan justice mii commencé jege lii yoon te bis bu ko jegee ba nekk ci justice boobu confiance bi am digganteem ak peuple bi dañ ko restaurer parce que ñoom ils doivent être au-dessus de la mêlée li tax nag duma sori ci loolu mooy xam naa ni am nañu rendez-vous yu bëri ci kanam ak justice boo leen waxee ci lu jëm ci lu rafet ñu ne danga leen di essayer jënd duñ ci sori waaye xam nañ ni rendez-vous yi ñuy xaar suñu diggante ak justice dina bëri parce que su dee ci la ñu mën a dëkk la ñu bëgg dëkk dinañu jàpp-jàpp ba sonn waaye dinañu bàyyi bàyyi ba sonn xam nga 2011 Macky Sall bi ñu jàppee benn waayam defe naa mooy sous-alimenté boobu naan daf may assassiné euh, bi ñu ko jàppee dafa ne woon na Ablaye Wade tabax ay prison yu bëri parce que ñoom ñëpp dinañ leen jàpp ñu wax ñu delloo ko loolu na yokk li mu am ci budget na ko tabaxi ay prison waaye du weesu séjour une semaine wala dix jours bu soobee yàlla kon wax nañu li tax ñu ne dañuy reporter manifestation bi li leen soxna Aïda Mbodj wax yëpp ay raisons yu valable la parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police ak gendarmerie parce que xam na ni askan wi wan na ko gannaaw mu jàkkaar jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu gànnaay waaye lii suñu police di suñu gendarme di suñu gànnaay mooy askanu Sénégal le peuple sénégalais mooy suñu police mooy suñu gendarmerie mooy suñu justice mooy suñu gànnaay moo tax il faut ñuy dégloon teg askan woowu man waxumaa kenn kenn ci senegal askan wi lay waxal parce que askan wi moo dem ba xam ni lii yeewi askan wi di leen wax lii mu leen di proposé mooy seen mucc donc man askan woowu laay waxal wootewu ma ndimbal fenn askan wi laay waxal askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa am lu mu waxtaan ak ñun ci fan yi soxna Aïda cité na ay secteurs yu bëri waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni junni junni la moo tax ñu ne ñu ne faaw ñu dégloonteeg askan woowu moo tax li mu wax yeer ci njàng mi ci aji màkka gi ci tabaski bi ci liggéey bi léegi rek am na ñoo xam ne président Khalifa Sall président Habib ak soxna Aïda Mbodj ñoo leen doon recevoir bokk na ci ñooñu ay homme d'affaires yu mag yu mu dul tudd fii waaye fii lañ leen recevoir balaa ñuy commencer réunion lan moo leen andi woon wax li nga xam ne mooy seen inquiétude ci situation Sénégal ñooñu ñëpp ñu leen di déglu moo tax ñu ne dinañu fomm. waaye man damay wax ni loolu ay raison la mais c'est pas les raisons fondamentales la dégloonteeg askan wi lu am solo ndax ñun bu ñu wootee ñu génn askan wee génn kon askan woowu il faut ñu may ko nopp waaye li gën a ñor ci li tax ñu ne nañu xoolaat doxalin bi mooy option stratégique option stratégique nag du fii laa koy développer mais naa ci wax lenn parce que suñuy militant suñu militante ak askanu senegal ñu ngi déglu gis nga situation bi ñu dund li ñu ci mënoon am yépp am nañ ko ndax Macky Sall bi muy def lii muy def nii jàppul woon ni mun na jur lii mu jur ndax yàgg na fee éliminer ay candidature dara yëngatul 2019 daf fee éliminer ay candidature teg ko ci ay parrainage ak ay inéligibilité élection législative bi mu éliminer ay candidature élection locale bi du moins ñu ñëw dugg ci élection législative mu éliminer candidature ndax moom ni muy fonctionner mooy dinaa def li may def te dara du yëngu dégg naa 2021 février 2021 bi muy yëkkati complot mu ñàkk fayda boobu bi ko gars yi waxee daf ne daf leen ne dinañ def li ñuy def yëpp te dara du yëngu waaye bi làbbal yi safee daf leen ne tout est dans cette affaire mystique bu jógee fan xam nga ñoom loolu la ñu gëm moo tax foog nañ ni lépp mystique la noonu la ko doxalee ci liste yi dafa gëmoon ni dina éliminer suñuy liste dara du yëngu waaye defe naa tey jii la Macky Sall di gëj a éliminer liste ci Sénégal parce que élection législative ñun suñuy liste suñu ma ma dalal xelu Sénégalais yi suñu liste yëpp ñu ngi en compétition am nañu liste national moom ay nit la cible mais am nañu une liste nationale mooy la liste des suppléants day dem élection am nañu liste départementale sur les 54 départements 54 départements donc ñun suñu lépp mat fi mu toll nii lay woon problème am mooy Ousmane Sonko warul dem Déthié Fall warul dem Habib si warul dem Khalifa Sall warul dem Aïda Mbodj warul dem euh, euh, nu mu tudd Cheikh Youm warul dem. Euh, nu mu tudd eh, ma Bousso même na Bousso warul de moom loolu moo ne woon yitteem te loolu dina xam ni nag loolu du ci wàññi tar fataay boo moytu sax day gën a tar te gàcce gi ci lay gën a rëy dinaa ci ñëw kon ñu jàpp ni suñu liste c'est intact waaye tey lay gëj a éliminer candidature Sénégal moo taxoon it fallait ñu jàmmaarlu ak moom won ko ni mënul yombee noonu parce que lii problème mu Sénégal saa yu Macky defee nit ñi ne waaw teggi leen seen tànk bàyyi leen noonu ñu bàyyi foog ni foofu lay yem mu tegaat ci leneen parce que fu mu làmb mu nooy rek day continuer ñi xamul li tax ñu doon xeex ma wax leen loolu Macky Sall su la su làmbee mu nooy ñu ne ñëpp woote nañu ñëpp ñaan nañu bàyyi nga xamal nii ma nga ci prochaine étape bi kon won nañ ko ni moomul nit ñi te affaire bi munul yombee noonu waaye li ëpp solo li ma wax léegi li ñu waroon am ci situation bi am nañ ko muy ñaar yu am solo bu ci njëkk mooy réew mi wane nañ ñi Macky Sall waa réew mi wan nañ ko gannaaw ndax li xew ci casserole yi keroog rek wane na ko Macky Sall na na woote léegi ne damaa bëgg nit ñi génn tëgg casserole bu juróomi nit tëggee mu jaaxal ma te nit ñi joxuñu leen lem menacé wuñ leen loolu wane na ni Sénégal wan nañu gannaaw Macky Sall ñaareel bi am solo ci njàngan mi mooy au niveau international ndax gis ngeen àdduna bi yépp ni mu traité situation Sénégal am nañu dem ba ba tuddee ko tyran tyran dictateur de la presse internationale am na ñu dem ba tuddee ko tyran ci koo xam ne jamono ji ma ngay ngalaju pour wane ni moom am na dimension international bu war a tax ëllëg ñu jox ko sax Nations Unies déconstruction boobu ak yi bu rëy ci ñun parce que jusqu'à présent daf ñoo yàgg a féewale sur l'international c'est des terroristes c'est des gens qui respectent pas les institutions c'est des rebelles dem jaay ko Union européenne France jàpp jàppale ko ci mu dem jaay ko ñeneen ak ñeneen waaye tey àdduna bi yëpp xam nañ di xew Sénégal kon ñun li ñu waroon tirer ci profit ci situation bi am nañ ko ba pare